Odou Mouhamed Ndiaye ci fa jëf kilifa diine yi ñuy sàllaw la ak di leen ñàkk teggin ci réseaux sociaux yi taxaw nañu temm ci mu dakk l'observateur moo ko bind ubbi di yéenekaay bi kilifa diine ci réew mi ñu bari ci ñoom dañoo mel na ñu ci kaw gi ki ci njëkk yéenekaay bi nee nañu moo di sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole xalifa général des mourides keroog samedi ci cérémonie officielle bu màggalu Kazu Rajab gi fa la xam le ne politiciens yi ak ni nga xamante ji noonu la ñuy doxalee nañu xam ne kilifa diine ñoo leen ëppale ci réew mi li ñuy xëccoo di yëf àdduna ba tax askan wi di féewaloo loolee nañu xam la ragal la la ca wax dara te loo l'observateur ne nañu noonee la ko sëriñ Abib si moom sëriñ Abdoul Aziz si dabax ñaawlo ci cérémonie officielle bu gàmmuk jagsaaw gi nee na mbir na ñoo ngi seetaan aka bay bayet loo xam ne bu màggee du jur jàmm dem nañu léegi ba benn kilifa diine ñemetu ta wax ci mbooloo ndax bañ ko ko ñàkk teggin te ñi koy def bàyyi lu ko kenn ca Medina Baye dégg nañu Cheikh Khouraychi Niass moom Ibrahima Niass muy ñaawlu song gi nit ñi jugtee léegi jëmee ko ci kilifa diine yi te li ko jiitu yéenekaay bi nee nañu xalif général bu Medina Baye di Cheikh Mahi Niass moo njëkk a yëkkati kàddoom di ñaawlu ak a naqarlu ni ñuy saaga ak a ñàkkee teggini kilifa diine yi bés bi le jour nañu dëkk bi di Touba am na lu ko mitti lool ca la fa xewoon keroog ba fa Ousmane Sonko jaare Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre ay kàddoom ci yéene bi muy xamle ne Touba dëkk beneen mu di Géejawaay L'Observateur ne nañu waa PUR di parti pour l'unité ay rassemblement fa la ñu gonte woon démb ab meeting ngir doon màggal ñaar fukki at ak juróom yi nga xam ne parti bi am na ko Vox Populi ca ndaje moomee fa la Ousmane Sonko leerale li tax keroog waa police toj otom génnee ko dugal ko ci seen fourgon blindé bi yóbbu ko ba këram Ousmane Sonko nee ne li tax police yi doxale noonu moom Ousmane Sonko journal lay fa nañu yamu ca ndax nee na leader yi ci opposition bi bu ci Macky Sall kenn askan wi ca palais ba lañ communication bu parti Pastef ca Kaffrine tuumay woon nit ñi ci fitna di appel à l'insurrection loole la ko jàppee ni ñu ko jàppee ca Podor ñoom waa parti Pastef bu dakkul du jur jàmm ci waa kër Macky yi yëral xët mu njëkk Walf Quotidien yéenekaay bi ne nañu ginnaaw lu ëpp ñetti millions ñuy dajale woon ci levée de fonds soxal nemmeeku turu Ousmane Sonko yi leader yu parti Pastef fële ci diwaanu Podor daje nañu keroog ci dëkk bii di demet samp nañu fa quotidien bind ne Pastef mi lawal ay banqaasam ca Île à ñaagis ga Casamance libération ne nañu foofe toj na mokk na rumbax princesse de ñaagis Victorine Ndeye maire bu ñaagis doon ministre microfinance yéen bi nee nañu moo fa woote woon ab méga meeting ci nag ak leader Benno Bokk Yaakaar yi ca diiwaan bu mobilisation bu rëy ca terrain ji fa ngor samp fa Macky def ko candidat ci wote présidentielle yi 2024 yi yu jëm kii di Benoît Sambou boobee dëgg moo wóor di Pape Modou Fall Tribune nee nañu moom ma nga woon keroog dimanche ci diwaanu Kaolack ab conférence publique la fa woote woon ngir doon fa fàttali askan wi ak diwaan li président Macky Sall liggéey ci Sénégal moom directeur emploi yéenekaay bi nee nañu jox na fa jeunesse bi message bu fort a fort jëm ci ñu wormal kilifa diine yi ci réew mi tegal na ndaw yi pexe yi nguur gi teg di programme xëy ndaw ñi ngir askan wi rawatina jeunesse bi fa jël kàddu gi ñaawlu fa réseaux sociaux yi ak ni sànq xale yi xale yi gën a taqee ci njàng mi atum 2022 yéenekaay bi nee nañu moom la IEF ak conseil départemental bu Nioro tànnoon ci ñoom lu mat téeméer ak juróom-ñett benn doon leen sargal ak neexal ngir gën a dooleel wàllu njàngale yëngu-yëngu yi ci am direct news mi ngi ñuy def ne lu toll ci ñeenti weer ci weer wi travailleurs yi ci collectivité locale yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu santé bi nekk ci giréw te boobee ba léegi dégguñu société civile bi ñu wax ji naka noonu it way politique yi pat patiral googee ci am yéenekaay bi nee nañu moo jaaxal lu bari beneenub laaj bu sampee ci beneenub yéenekaay moo di ci La Tribune lu aju ci rapport bi fi Cour des comptes siiwaloon mu jëm ci niñ doon doxalee xaalis bu Fonds Force